ak jàpp boo xam ne jógee na ci Sénégal yi jëm si ci ñun kon nag loolu ñu ngi ciy gën a santaat yàlla ci ñaan yi ci xam ne su borom rek mooy ki maa ngi sant bépp kilifa diine bépp convergence bi nga xam ne yàlla dogal na ma jiite ko maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di wax ne yàlla defal nañu jàmm waaye nag di sant mboolem xalifa bu ne ci réew mi ak kilifa yi ñu woo yëpp di sant mboolem waa réew mi ci xam ne yàlla mi nga xam ne mooy joxe jàmm mooy musule musal nañu cën moo muccal mboolem jaam boo xam ne ni am na di sant bu baax ci ki nga xam ne moom lañ àndaloon muy président de la république euh, ndax bi mu yëgee mbir mi jël na ambulance boppam euh, yebal ko mu jël suñu ci village bi yóbbu ñu ci village bi gën a jege euh, ñu gën ñu toppatu tooñu bañ ci jegee yóbbu nañ ñu wurusoo gi toppatoo yi ca war yëpp ñu def ko mu wëññeeku yebal mi sa di sant muy Diop saar mu ñëw taxaw lépp loo xam ne nii waroon nañ ko topp ci ay toppatoo ak taxaw ak taxawaay taxaw nañ ko ci suba it bi mu xëyulee euh, euh, sëñ bi ci guddi gi bi ñu yàlla dogalee suñ lépp ñu sant suñu borom ñu xam ne delluwaat nañ ci résidence bi nga xam ne fa lañ daloon euh, yàlla defal ñu ñu tëdd jàmm yeewu ci jàmm dem nañ fekk ji ko mu yebal ay nit yu gën si ñu fekk ji ko moom ci jëmmi boppam it wan ne ànd naa ak ñun tiis wi ndax conseil des ministres bi moo waroon a am tey ci suba mu waroon a ñëw ci ñun mais comme conseil des ministres bi am te yàlla defal na ñu jàmm ñu dem fekk si wax